ko wax Touba wax wàllum oto oto nag xam ngeen mbirum parking nag doon na loo xamante an wàccuwaay bu mag ci dëkk bu sel bi Touba loolu tax nag ki nga xam ne moo bu maire bu Touba di Moustapha Dieng amal ab jataay seq ak ñi nga xamante ne parking yi ci dëkk bu sel bi Touba mbooloo mu takku nak teew nañ ci nag ànd ko Serigne Saliou Mbacke mu seen aji baara ñëpp xam ne di liggéeykat bu xamante ne ko ñemee coono la ñemee dund aw ñaqam tax na mu and ak ñoom gis ne teew ci waxtaan am solo yi nga xamante ki kii di Moustapha Dieng dikkaane ci leeral li nga xamante ne moo waral ci jataay bi tey ñu teewlu kàddu Serigne Moustapha Dieng daax bu maire bu Touba. parce que liñ bëgg def gestion concertée la. maanaam dëkk bi liñ def ni di leen wo di leen informer la waaye plan d'aménagement concerté liñ bëgg def. muy marché muy fépp. dañuy nan la ñuy toogandoo ci mbedd bi wala bu ñuy àndandoo jóg ñu àndandoo jóg li bëggul daal mooy ki am doole di occupé du ko neex ki néew doole ñu. wala ci am xaalis bu njëkkatee ñëpp bu fayee ñu tegaat foofu parce que mi ngi am. Mhm. ñu xàll ay mbedd. Mhm. nga xëy gisaat fa ay nit. Mhm. te ñooñu allahumma salli ala sayyidina tegu leen fa. seen poche moo leen fa nekk. te ñun nag li ñuy moytu mooy fii moom dëkk bi lépp lu wàcc yoon ñu di ko def. damay faral di wax saa ay jotaay bu ñu dajee ak ay acteur ma leen di wax ne lépp luñ leen sant lu dëppoowul ak yoon bañ leen. man de du ko def.

kon bu ñuy wax waxu quotité waxu montant bu ñuy fay ki ko voté rek moo ko mën a wàññi maanaam tey monsieur le maire mën na ñëw taxaw ne wàññi naa leen ñaar dërëm day dellusiwaat fii ci conseil municipal bi mm-hmm. ñu defaat beneen délibération ne dañ koy yokk wala dañ koy wàññi président de la république sax mënut a wàññi impôt bu mm-hmm. bëggoon a wàññi kenn impôt day delluwaat assemblée ba ko voté mm-hmm. ñu ne lañ doon fayeeku ci kër ñaari junni léegi junni la te bu ko wàññee sax loolu ñuy wax impôt bi ka war a moom impôt bi day am retour da koy da koy da koy dox mm-hmm. moom yoon moo ko imposé mm-hmm. tey bu ñëwoon Touba ne may naa bu leen fay moom mooy fay mm-hmm. wàññee ñaar dërëm mooy retour ne mooy fay nga xam ne moom lañ délibéré moom fii ak soppi wuñ ah, ku ko wàññi da ko wàññi ci sa coobare waaye tegu ko ndax euh, impôt moom ki ko voté rek moo koy wàññi loolu mooy benn ñaareel bi sëriñ bi wax na ko man bi may tàmbali ñi jël kàddu ñëpp dafa mel ni ñëwuñu ci loolu dama ne fay bi moo mucc ndax am na ñuy fay am na parking yu ñu fay xale yi am na ñu convoqué sama bureau bi ñëwee foofu lañ fayee ñii at yëpp ñii fay 3 mois ñii fay 4 mois bëri nañu ci fay donc fay du problème ñun fi ñuy jaar ba defi fexe fay moom am nañ mais bu ñu leen woowee dama ne dañu bëgg organise secteur bi te loolu kenn tontuwuñu wuñu ci te loolu moo mooy li ëpp solo ci jotaay parce que bu doon fayeeku rek la ni ñu yónnee convocation woolu leen noonu la ñuy yónnee ay ordre de recette mm-hmm. yu maire bi si mm-hmm. ordre de boo ko yónnee maanaam yi dafa bëri fu mu mën a jaar mm-hmm. yow trésor rek nga ko jox dem toog bu la fayeekoo nga bañ banque yëpp la ko yónnee foofu am compte rek dañ koy téye ba nga fay soo amul compte taxe moom boo ko fayut bu weer wa dellu see rek day yokk kon mécanisme fayeeku nit ñi am nañ ko mais comme ni ngeen ko waxee loolu moo ëpp solo dama leen ne sëriñ bi li bëgg ci dëkkam bii dana am ñun dañoo bëgg li mu bëgg am am ci jàmm rek moo tax ñu woote waxtaan léegi nag li ñu leen di invité d'abord mooy identifier acteurs yi nekk ci secteur bi maanaam yéen ñëpp yéen nangu ngeen ne sëriñ bi mooy kilifa jotaay bi bokk na ci yëf yi bari nañu fi ne ñu bu sëriñ bi waxee jarul ñuy wax defar leen benn comité ad hoc boo xam ne nii nit ñi dañ koy seq bokk parti yi jiital sëriñ bi wut secrétaire wut keneen ñetti nit seexu ko. Hmm. daal di jëli adresse jël numéro téléphone tàmbale waxtaan. waaw hmm. liste ñi am parking ñëpp ñu bindu leen. léegi nag li jaaduwul mooy tey bu ñu nee man mënuma fay vingt cinq mille bi wax na ko nga ñëw ci benn angle. Hmm. occupé tali bi occupé bi mi bi yëpp gaare fa trois oto. mais gaare fa épave. Ah. am na ku ne parking yi oto yi dafay rafet dañ koy sa ah man maa ngi gis naa parking yoo xam ne la fa nekk ay épave la. carrément. te loolu gënul parce que du taaral dëkk bi donc loolu yëpp nañ ko jéem a waxtaane te ñun dañ leen ciy déglu hmm. mooy ay nit kumpa baaxul ni ay nit buñ umpalantee rek ku nekk da ngay tàmbali nekk sa côté di wax di imaginer di jot ci nit ñi naka su dul noonu hmm. nañ tàmbali d'abord buñ fiy jógee am benn mbootaay bu taxaw bu lëkkale ñi mu yor yi hmm. foofu la waxtaan bi tàmbalee ñu nit bu ëllëgee du jar ñuy woo ñëpp mbootaay boobu la ñuy woo waxtaan ak ñoom ñoom ñu delluwaat ci yéen ngeen daal di def seen benn groupe whatsapp wala dara jot amul bu dara xewee rek ñu dugal ko ci ñëpp yëgandoo ko mm-hmm. ñu identifier maanaam recenser parking yëpp xam ne tant de parking nga ne ci dëgg mm-hmm. mais it ñu commencé fay léegi nag parking yeeg oto yeeg ñëpp dañ leen defar ay carte mm-hmm. carte yoo xam ne day am code QR comme yi nekk nii ci ci ci weef ak yooyu hmm. ba yow boo tiimee code bi ne rek da nga xam kan la hmm. diw la numéro carte d'identité nangam la numéro téléphone nangam la bërëb sangam la nekk fay na wala fayu hmm. fichier boobu buñ ko amee yéen ngeen am ko ñun ñëpp dañuy nekk même longueur d'onde parce que fayee ko bu ñëpp dee fay dana woyof ci ñëpp waaye bu ñaar ak ñett dee fay kii fayee ko moom day fexe ba jël le maximum ci yow tey boo occupé fukki mètre ci mbedd bi te yow rek yaay fay bokkul ak bu téeméer di fay ku ne ñaari mètre moo tax bokk àndandoo def mbootaay ñu identifier leen defal leen ay carte ñu xam kan mooy nekk ci secteur bi ñu tàmbali loolu d'abord hmm, yooyu yëpp il faut ñu fexe commencer di ko organiser di ci jéem dara parce que jéem tële amul gàcce mais nañu jéem organiser secteur par secteur organiser boobu nag yéen ñii da ngeen cee war a jiitu hmm. parce que parking yi ñu ko fi yor ñëpp ay kilifa lañu li ko sëriñ bi waxee jarul ñu naan diw ay diw mais ñoom ñépp ku ci ne am na loo doon ci dëkk bi wala lu fi sa maam doonoon wala nangam ak nangam te ñooñu dañoo am lu leen war ci dëkk bi war du ci fay rek ci fexe ba yëf yi ñoom ba yëf yi tegu ci yoon ci loolu lañ leen di invité ndax ñun fii ñu nekk ak parking ba ñooyam ay tool la rek yoon yi moom ñii dañu am doole ñi am xam-xam ñi am xel ñi am wërsëg ku ne la nga toll lool ci loolu ngay def ci yoon kon dañoo war ku ci ne secteur bi nga nekk muy néew mu bari nga taaral ko ba ñu xemmeem dëkk bi xemmeem yoon loolu daal ci gàttal mooy liñ invité bi leen ci woo bëggoon nañ nekk xale bi nga xam ne moo yor. li kilifa gi wax dégg nañ ko wax na ko répété na ko ay yoon mooy du caagin rek daf ñu woo ngir ñu laaj ñu xaalis waaye gis naa ñu bari dañuy waxee ci xaalis bi doon wax mbir nag soo ci nekkee di liggéey la ca jiitu mooy organisation. organisation dafa large na dafa yaatu mun na dem ci domaine bu nekk ba fi ngay nekk premièrement dañ ko war a li ngay defit dañ ko war a organiser loolu moom la war a jiital su amee dafay yomb moom bu dee fay wala ñun ñuy fay mën a yomb loolu nag yaakaar naa xëy na sujet bi mooy parking yi mais analyse bi na am ci dëkk bi moom neexute waxtaane bi ñu ñëw léegi rek plus de vingt mètres yoo xam ne trottoir bi nga xam ne ay tànk ñoo ci war ay oto ñoo ci gaare ba nit ëpp na vingt mètres wala trente ak yi geneen ak yeneen ak yeneen ci wàllu gox dañuy wax rek lu mooy jiitu suñu organiser ba nag fi ñu nekk organiser li ñuy def organiser ni ñu koy defee su boobaa dana yomb ci yoon lu mu bëgg a récolter ci ci jeunes ñu récolter ko ñun tamit nu ñu war a liggéey ñu liggéey parce que Sénégal rek la am rawatina Touba yenn façon liggéey bërëbu liggéeykaay yi ñu bokk lenn lu ñu def war nañu am benn distance boo xoolee ci domaine lu mel ne ay Orange Money seen point yi sax du ñu nangu sax ñu daje ñu jege benn ci organisation bi la bokk loolu yaakaar naa euh, rôle commune bi la lii tax nag mu xaw a jafe ci commune bi mooy ñu ci bari fi nekk yàlla dafa dogal dañ ko moom muy seen ay tàkk yoo xam ne ñoo moom

ci anam boo xam ne ni ni ñu war a liggéeyee ñun danañu ko def yaakaar naa anaas bi ma wax léegi buñ buñ tuddee oto rek mën naa tudd nañ lépp moo xam oto yi taxaw la wala oto yi daw kon jaadu nañ ñu ñu xool nan lañ mën a organiser premièrement